convergence euh, des jeune républicains de Touba saa suñ tolloo si waxtu wi dañuy amal ay activité jëm si màggal Touba ren jii nag ñu ngi taamu ñaari barab bu njëkk bi di garage Dakar bu bees bi ñu nemeeku ni am na affluence te nag sax ña fay wàcc di màggal si bare nanu ñoo ngi si jamonoy mbas ñu bu fa nag masque yu bari boole ko ay détergent ngir aaru si boobee mbas. ci turu président di rafetlu action bi ngeen di def ndax ñaari joxoñ yooyu. daanaka li ko ëpp importance amu amu amu fi. amatul lu ñuy teg naa santaat gone yi di leen ñaanal li ngeen di sàkku sun borom may leen ko ci barke Sëñ Tuubaa daraja Cheikh Mamadou Lamine. kon Baye Idi ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di ñaan yàlla suñu borom mu oyofal yenn wi comme nam ko daan defee dañoo xool xam ne màggalkat fu waaye mën a jógee ñëw ci dëkk bi même avion bu la indee daa am fi muy yem ak yow mooy Ndakaaru Njaay waaye oto moo xam particulier moo xam transport en commun moo xam lu mu munti doon waaye oto moo lay indi ba ci biir Touba ñu xam ne Touba porte d'entrée bi muy gare routière bu bees bii. ba tey tamit seen programme bokk na ci hôpital Ndamatou bi ñu fa demee également tase noonu ak kilifa yi jox leen tamit li mu masque yu bari ak ay détergent ngir ñu mën a waajal màggal gii. mais di wax ci turu docteur Soran. waa acte bi COJER def euh, rafet na parce que dafa doon acte bi nga xam ne dafa ñëw dimbale hôpital. si li nga xam ne mooy taxawaayam tous les jours parce que ñu ngi si période mbas mi comme ni ngeen ko xamee te produits yi ñu indi détergent yi ak euh, eau de javel bi ak masque yi bokk na si li nga xam ne hôpital moom lay jëfandikoo. mais dañoo xam ne màggal envergure bi mu am au niveau mondial nga xam ne ñëpp dañuy jógee partout dans le monde du teel tamit bu kaay wàccee ñu sensibiliser leen mbas mi ba tey mi ngi fi moo tax tey ñu ñëwoon fii si hôpitalu Ndamatou. mboolem ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale suñu activité bi. Euh, di ci jiital nag euh, ki nga xam ne moom la président dénk wàllu ndaw ñi te seetaanu ndaw ñi benn yoon madame la ministre de la jeunesse Néné Tall xaj na activité bi bu amee mm, jàpp na ci bu baax a baax a baax ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm waaye di sant responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yëpp honorable Matar Diop di sant le ministre conseil Cheikh Abdou Bali di sant mboolem responsable yi nga xam ne waaye li waral li waral jëf ji rek yaakaar naa ni ñu ko defee léegi ci gaaru bi noonu lañ ko defee fii ci hôpital bi jàpp naa ne suñu objectif rek mooy doon ay ndawi tubaa màggal tubaa ñëw dañuy xool fi nga xam ne ñun fi lañu mën a liggéey Serigne Touba liggéeyale Serigne Touba ñu nekk ca mooy sensibiliser nit ñi ba nga xam ne li fi nekk kus néew li fi nekk kus néew ci ci mbas mi malgré mi ngi wàññeeku suñ bi suñ Mountakha santaane Nuuru Daarayni Nuuru Daarayni yóbbu nañ lu bari mais ñun dañoo bëgg taasuwaale ci barkeb Nuuru Daarayni bi ba lépp àndaale dem loolu rek moo waral activité tey bi. seex bu tubaa naa yeneen activité ci yeneen fànn bis di ñëw.